julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallahu bi ñu duggee ci weeru muharram noo ngi tegoon tomb bu tudd ashura wa durusuha njàngale mi nekk ci tamxarit andi woon ci tomb yu am solo jële woon ko ca tomb bi suñu ashura ba woon ca Suisse ay tomb des ci yu bari waaye gën a siiw ci tomb yu des mooy gàddaay gi mooy alal ji waaw gàddaay gi ak alal ji ñoo ci des alal ji mooy natt li nga am ba génne ko asaka ñu ngi ci weeram gàddaay gi mooy li yonente ba jóge Màkka ñëw dëkk ci Madina loolu mooy tomb yi desoon tombu gàddaay gi ak tomb politik su fekkoon pénc mi du péncum aada kon xuusees ci politique waaye nit ñi dañ laay wax ne wax ci nela bu ci wax nela bu ci wax ne wax ci waaw aqafu dara yi nag moom ngay tànn su ma ñëwee ci tomb bi ma njëkk muy gàddaay gàddaay mooy li nga xam ne du xewwi gàddaay du xew wi alayhi salaam ma ngay wax ne nag laa fatxa wala laa hijrata baadal fatx waaw waxin la wu am solo waa penc mu dégg gàddaay mooy nit ku nekk fenn jóge foofa dem feneen ki yàlla yónni woon nag sunu magum daara mi yàlla yokk ko yërmande moo daan wax te bëgg ca wax ja doomu aadama yi xam ni yàlla ni leen yàlla may dundug yonent bi waaw mu ko daan def ci anam bu am solo yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay gi mu jóge màkk ñëw ma madina doomu aadama yépp a ci war a jàng xale yi mbëkk ak seeni waajur ak état ak sëriñ si ilimaan yi ak ustaas yi ñépp ci war a jàng ci gàddaay gi ndax lu nit la te am solo buñ ko defoon nam ko defoon léegi tey mbëkk mi bu jeexutul wàññi ko lool waaye buñ ko deful nam ko defoon mbëkk mi lu ñu ko xeex xeex xeex du wàññeeku ndax xeex baat bi damay xeex nangam ëpp nay wax waaw damay jéem a faj nangam xëy na moo gën a woyof waaye damay xeex ëpp na di wax nañu bàyyi baatu xeex waaw nañu bàyyi baatu xeex tey jëfandikoo baatu bëgg mu jóge fi walla jéem mu jóge fi mbokk li tax yonent bi jógee Makka dem ilal Madina ay sabab yu asbaab yu baree bari la waaw waaye daal bokk na ca bundu gu guñ ko bundu ca Makka la muy woo nit ñi magi màkk ya naan du fi ame ku sa doom dugg ca mbir ma nga fitnaal sonal duma ku sa jabar dugg waxi noppi ku sa jaam dugg noonu mu nekk ca màkka di ko ca woote mën nga ne la ko bañ la ëpp la ko nangul léegi nag foofu mu nekk ginnaaw dañ koo gàntul te moom alayhi salaatu wasalaam àdduna nim ko xamee lim ci man tax na ragalu ko ragalul àdduna au contraire àdduna koy ragal bi mu defee noonu mu daal di xam ne fii ci Makka moom liggéey bi bu dee amit yéex lañ gën a séentu danaa koy misaal sëriñ Mbàkke mu jóge ci jataay bi léegi yàlla na ko yàlla yokku wér ne ko bu doon tey danga naan média yi dañoo médiatiser Makka wutal ko ay tur yu bees gàll ko tur ya penc mi bàyyi tur wi ñu ko tudde woon al aminu fekk média yi ci tur wi ñu tudde yu wutale bi ñoom waa màkka maama bu ko tuddee muhammad waa màkka tegal ko ci al aminu waaw muhammad la ko maamam tuddee waa màkka ko ca al amiinu al aminu mooy ku wóor ki ki mën a denc ay secret mën a denc xaalis mën a denc ay wax mën a denc ay mbóot kooku mooy al aminu kenn du wax ak moom dara dégg ko ca pénc ma kenn du fiq ak moom dara dégg ko ca pénc ma kenn du ko dénk lu réer waa màkk tudde ko al aminu te booba kenn yónneegu ko waaye médiatiser nañu euh, màkk gépp dama ne ba média yi gañe gañe terrain bi ba léegi turam woowu waa màkk tàmbali koo soppi wutal ko tur yi nga xam ne moom la ko média yi wutal gis nga loolu jàngalekatub diine bu ne ci penc mi tam soo ci bàyyiwel xel noonu lañ lay def dañuy soppi sa tur yi wutal la weneen tur waaw ko defee penc mi bëgg a jël tur woowee te tur woowu du turu defar déedéet du turu defar léeg-léeg dañ lay wutal tur wax ne turu xew la te ku xew-xew yi waaw lu am solo la <laughs> waaw lu am solo la bi waa màkk di fii noonu di ko wooxee saahir di ko wooxe shaair di ko wooxe kaahin lu nañu wooye ko ko ci loolu di ko wooxe majnuun tur yooyu lañ mujj média yi gañe daanaka mën nga ne terrain bi ndax tur yooyu ñu ko wutal waaye ki yàlla ni woon ginnaaw yàllaa naan ko defal nangam tegal sa tànk fii bul ko fi teg kooku pexem nit munta gàllankoor li muy def pexem nit munta gàllankoor li muy def mu nekkoon kon na wut beneen terrain boo xam ne bi bala ko média yi di médiatiser moom mu gaw ko maanaam mu téye ko ci loxoom waaw alayhi salaatu wasalaam mu njëkk ko mu njëkk ko euh, waajal ci Afrique gii tey nee nañu Éthiopie gii ci la ci la ko tàmbali woon a waajal bu fekkoon waa Éthiopie am nañu sens waa Afrique am nañu sens kon gàddaay ga day jóge màkk ñëw Afrique waaw ñëw Éthiopie waaw bu nuy aji màkk bu ñu fa jaaree ziar ko rawdatu sharifa door a jàll waaw malheureusement laay wax xaw <laughs> foofu daal nim ko bëggee woon doxewul noonu waaw ni ko bëggee woon doxewul noonu waaye nag eh, xalaat na ko xalaat na ko yónnee na fa aw nit ñu làqu fa message ba jàll fa la nangu bariwuñu foofu nag bu gàddaayee dem fa te ubbiluñ ko bunt yaa xol yaag néeg ya mën naa am liggéey bi yeex te baw darawul imaan mën naa ñàkk foofa léegi mbooloo la fa yebaloon mbooloo ma am nañ fa ay fan bunt ubbeekuwul bu jax bu jar ñu naan na gàddaaye màkk ñëw foofa waaw mu yónni kenn ca almadina waaw mu yónni kenn ci almadina xale baa nga tudd musab ibnu umayr musab ibnu umayr waaw léeg-léeg ñu romb ko ci téere yi waaye cey njàngale mi nekk ci dundam gu dundu gone googu hmm. waaw njàngale mi nekk ci dundu gone googu musab ibnu umayr yonent bi tànne ko Makka yebal ko Madina ngir préparer gàddaay gi ndax wóor na ko ne màkk moom dana fi jóge benn mu dem Éthiopie walla mu ñëw Madina waaw léegi nag mu yónni Musab ab ñëw ilal Madina yem fiñ ko yemloo ci wax yem fiñ ko yemloo ciy jëf yem fiñ ko yemloo ci xam mus ab luy masalam xilaaf du ko tudd mus ab waa pénc ma lay seeni yëf du ca tudd déedéet li ko yónent bi yónniwoon ca lool la nekk ca lay xëy ci lay gon tàmbale ca yam ca te loolu ku ko def ci aw nit rekk li ngay def am jeexantal ci ñoom nit li mënut mooy agsi fekk ko ci dara ngay critiquer loola mu nekk ak di ko yuuxu waaw bu dee ku la mag keroog ngay ngay mujj am message bu jàll ci moom waaw jàngal mag moo gën a jafe ci njàngale yi ndax mag bëggul diplôme doyu ko dara <laughs> ba bi bu léeg-léeg mag jàng ko waaye ferum ijéem daanaka mu ngi noonu rek waaw boo ko laajoon tey alxaaji Omar Ba mu la ca caajaay waaw di sànn léeg nu yendu fa waaw yal na yàlla yokk ko wér mag dafa am nuñ koy jàngale Musab ibnu Umayr yonent bi xool gém xool xale bi ak xam gém xam ci moom moo tax mu tànn ko yebal ko fa te loolu léeg lekk day biimeelum pénc mooy nit ku mënta séddale ay tâche nit ku mënta tànn ay ay acteur mën naa biimeelum pénc ay acteur xoolal bi yonent bi tànnee yi bu fa saaba yi demoon ñu leen xoolal kon tànneem googu niñ koy niñ koy sikkalee allahu akbar waaw moo tax bi mu tànnee Musab li tax mu tànn ko Musab yàggut lool xëy na ca darul arxam ibnu abil arxam waaye jaar gi mu fa jaar lu mu gàtt-gàtt yonent bi gis na ci moom ëllëg yoo xam ne ju leer nàññi la ndax gone gi dafa ñëw ca waaraate wa dégg ci ay baat baat yooyu jóge ci gémmiñu alayhi salaatu wasalaam dugg ci noppam àgg ci xolam baat ya convaincre ko waaw baat ya doy ko mu laaj lii kii di wax ku ci bëgg bokk nooy def ñu tudd loo ko baati seede mu tudd ko dem ca kër ga yaayam seetlu ci moom lum daawul gis ci moom mu woo ko mu ñëw mu wuuf ko raay bopp ba waxtaan ak moom aha waxtaan wa jurne dafa dugg ci diina ji bees ji yaay jë ba max ko yaay jë ba max ko moog moom moog moom ba ne ko damay def grève de faim yaay ji wax ko loolu duutuma lekk duutuma naan su ma faatoo ñu xas la àdduna yit noonu lañuy defee grève de faim jàpp nañ ne ku ko def boo faatoo dañuy xas nit ñi xam naa daañ leen xas waaye moom moom yow it <laughs> mu ngi noonu waaw lu ñëpp xam lu ci waaye wax mu doy sunu sëriñ baa ko daan wax sunu waajur wa bàyyi sañ bàyyi sëriñ saaliw Musab yaayam ne ko damay def grève de faim duutuma lekk duutuma naan su ma faatoo araab yi xas la ndeysaan Musab ne ko yaay naa mu ne ko lekkal naanal sa téeméeri bakkan yu wadd taxumaa bàyyi li ma nekk lekkal te naan te xas wi ma arab di xas su boobaa du xas wu may jàpp ndax ku sàggane sa yaay la arab yi di xas waaye man sàgganewuma la dama dugg ci diine yi sayyiduna muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bu ma ci araab yi xasee aw tagg la ci man yaay lekkal jeexalal grève de faim bi loolu nag message boobu message boobu bi ko sëriñ bi déggee alayhi salaatu wasalaam wala boog kilifa gi bi mu ko déggee dégg ko dégginu nun nun sunuy nettali daf ko dégg déggu li ci ginnaaw wax ji li ci ginnaaw wax ji waaw léeg-léeg suñu xel dem ci al mustarshiduna wal mustarshidaat kera ba nu invité ca université ramadan ndeysaan waxloon maa wara al xijaab waaye gis nga maa wara al xabar wala maa wara alxaadis wala alxaadisa yonent bi message mus ab boobu dégg na ko lool dégg nu bokkut ak sunu déggi noonu wala sunuy nettali moo tax keroog ba muy wut ku dem Madina moom la tànn alxuraan lépp wàccagut téere fiq yi amuñu téere yi addis amut déedéet waaye lam ca jot a am loola la yóbbu loolu ñu tuddee formation lim jot a am rek loolu képp la yóbbu booba saari madina yi tàmbalee gu ñoo wàcc saari màkk yi lépp wàccagut déedéet waaye la mus ab do jot a yor ak loolu mu tontu yaayam hmm? yonent bi ne ko kaay nga demal ñu ilal madina ba demee nga jàngal leen li nga jot a jàng nga jàngal leen li nga jote jàng waxi mag la li nga jote jàng éducation bi nga jot a am formation yi nga jot am orientation yi nga jot am doylu nga jot am jikko yi nga jot a am yëtal ma ko waa Madina mos ab tàggu ko yonent bi ñaanal ko dénk ko yàlla loolu ci préparation gàddaay gi la ci préparation immigration bi la immigration bi xale yi di def dafa aajowoo préparation bu mel nii dafa aajowoo laltaay laltaay délégation moo koy def jóge ci réew mi gono yi di jóge dem ci réew ma gone yi di dem waaw bu demee du àgg pour gàttandu leen dëpp leen day àgg ci gàttandu leen dalal leen loolu la la yonent bi def yebal kenn mu dem Madina ma ne xale yi di jóg fu ñu jëm Espagne fu ñu jëm itali fu ñu jëm amerique waaw pexe mu ne nga def ko pour dem dama ne délégation moo leen war na jiitu fañ jëm tabawu daara wal iman lu am solo la préparation gàddaay gi délégation boobu doon jog di jóge Afrique di dem Europe wax ak waa Europe waa Europe bu waxee ak ñoom war nañoo bàyyi bàyyi xel ci gone yi nekk fii bëgg a dem teñ tëjal leen bunt yépp ba demee ambassade bu France bu bu bu Espagne moo ci rawati danañ la laajub xaalis duñ la ko delloo duñ la may visa délégation boobu bu fekkee am ay nit dañoo jóge nag bitim réew bëgg fee ñëw moom jarul visa da nga jëkkee rek bañaax waaw defe naa dégg ngeen avocat bi nu fi bañaax bërki démb <laughs> coow li na kurru ci pénc bi waaw waaw bañaax kenn mësu koo gis ana ala kulli xaal yonent bi buggutu xëy rek ne bañaax madina mu yebal fa Musab mbokk yi gone googu ñëw ñu dalal ko waaw gone googu ñëw ñu dalal ko gone gi mel noo xam ne gone madina meluñu ko mag ñi tàmbali ko nangoo ci gone yi ndax moom loxam set na mag ñi tàmbali ko nangoo ci gone yi waaw ndax moom loxom set na gone gi moom it doon gone goog du ñàkk place bi mu am ci gone yi te bëgg naa jot ci place bi mu am ci mag ñi allahu akbar liggéey bu réy nga noonu looloo jaaxaloon mbokki bu ya bañ na ko laa nafqahu ma mimma taqulu Shuayb bu def doon woote ci diine waaye kenn mënu ko tàqalee ki bokkam ker ba pénc ma jaaxle ne ko walaw laa rëhtuka dugun ko nag sa mbokk yi tey waxatoo ko mus ab ci liggéeyam muy dund loolu fexe ba gone yi duñ ko ñàkk mag ñi daañu ko am waaye bu jógewoon ci gone yi dem ca mag ña gone yi xeex ko bu fa bàyyi woon mag ñu nekk ci gone yi mag ñi xeex ko loolu bind la ba ximaaya ijtimaaya la bu am solo boo xam ne ñi ko xam ba xam ko bokkut ak ñi ko réere te réere ko jaaduwut ci kuy jàng gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw kero bi muy préparé gàddaay gi moom alayhi salaatu wasalaam ca masjidul bayaa ca réunion bu guddee ba woo na ca réunion ba ku bokkul ci diini ji waaye mbokk la keroog réunion ba bo boole na ca koo xam ne kii ak bokk a tax mu bokk ci diini ba ca ca réunion ba waaye du du du diineem ba mu ci waxee xalaatam ba daaneel alayhi salaatu salaam ne ko lii la toxoon ma ne loolu kaay bokk ci réunion bi loolu nag dañ koy sóoraale waaye bu seetaanee fexee ba boo duggee ci dara mu xaajal la ak say bokk xaw ma danga nga dem moom déedéet waaye fa nga jëm moom àgg fa dana la jafe seetaan nag loolu lay liggéey boo duggee ci dara day dalee jàppale say bokk moom liñ da nekk dara wiiru ci say bokk nangam say bokk nangam te say bokk nag ñëpp la ciy boole ci sëriñ sa ak taaliba yaag cheikh yaag muxaddam yi ñëpp lay boole rek bëgg leen a def ci ci ci benn siwo fekk du noonu fekk du noonu gàddaay lu jar a jàng la mbokk yi gàddaay lu jar a jàng la nu koy jéem a jàngat maag yéen xam naa foofu ngeen tëdd mbaa ngeen toog mbaa nekk ci oto yi xëy li ngeen ci xam moo ëpp li ma ci xam ku leen joxoon micro jàngalaloo leen gàddaay ngeen wax ci loo xam ne nii tabarkàlla mooy gën a jekk mooy gën a jaadu mooy gën a yaatu lii ma ciy wax dañuy nab nabi rek tabarkàlla wóotu leen fii yéen ñi nga xam ne <laughs> am ngeen barke à suivre mbokk yi deme même heure même fréquence bu soobee sunu borom sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ni taxaw yor seen i këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi ci toi firiñ fàncal ko ci wolof ñaana leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S tàngal bégeeg kii bëgg a ñëw yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tata wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi